matag bamba ak waxi bamba ak jëfi bamba ak gaay bamba bamba di kenn waxam di jenn jëfam di jenn kenn du bamba bamba di waxam di jenn jëfam di jenn kenn du bamba gisunu kenn foore du maasum buura ki eske bamba waxam ja day seet jëfam ja day seet jëmmam ja day seet sanga di bamba foo waayam day gëni baayam gëni ni jaayam ci waay Bamba ku àndul ak moom moom bëggul moom ku dëddoo Bamba yaa alal yaa barab gënu ku wéy ci yow mujj am mboole mébét yaasal sëriñ bi yaa gën alal yaa gën barab gënu nit ku wéy ci yow mujj am mboole mébét yaa sal gën ci nit bakkanam yaa gën ci nit barabam yaa gën ci nit mbokkam ak léppam ku weddi xamul sëriñ bi yaa gën alal yaa ku way ci yow mu jaamboole mebereesal sëriñ bi yaa gënaalal yaa gën barab gënu nit ku way ci yow mu jaamboole mebereesal yaa gën ci nit bakkanam yaa gën ci nit barabam yaa gën ci nin mbokkam ak léppam ku weddi xamul kuy bëgg mbokkam kay wut kenn kay fexelef ma muy fexe yow kuy jëm fenn dof la fa mën nañ ma dimbali nag baa fa te saa bakka ki saabara ak lépp man nga defal may mag cofeelit ci yow bi fàtteloo sama xol bànneex adduna ak alaaxira ki mbugal saytul sama dootul fas lu dul sa ngërëm sàmmal samay cër dootul jëf dul sa ndigal jonaara bi ak saa cër yi nanga ko yor saytul ma sàmmal ma jur gaa ngi ma jox fa bal lii ba ko dox sunu diggante te far ko farang boo ma defoon sax mbubb ma ma naa far di bopp ci yow naa far di tànk ci yow naa far di kenn ci yow saajo jaa fajal danaa la wettal jaal la kër def la ndeek baay ak ni jaay ak sëriñ wata boor ak ndabbu ndiir ak mbuuma kub coxeem fa bis ba suuf jëlub lingeer ak jëlub jaam ak xajaam loo jël deegi moom xëjël la denki suuf lii ñëw ci yow di la nopp bis loola yow bu ko nopp ndax jépp jongama joo gis lee mu medd barab wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala al mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin barke borom Tuubaa